sëriñ Touba da nga fekk mu naan raddali yal muhiidu xaama xal sa si maala la ani xablu ama jëy sa si raddali yal muhiidu xaama xal sa si maala la ani xablu ama sëriñ bi ne la ko taxoon a jóg ca jëy sas di ko wut di ko wër di ko seet xal sas la ko ko sut borom yot mooy juróom-ñetti ati njëriñ da jël siin su tooy jël siin su jël laam jël xaalonk muy junne ak ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñett kon mooy juróom-ñetti ati njaarim ci la sëriñ bi jot mbooleem la ko taxoon a jóg lépp mu bindal ko boppam raddal yàlla muhiidu ama al sësi maa laa la ani xablu ama jëy sësi soo tee seetee nag diggante boobu dana mat ñaar fukki at ak juróom yoo xam ne at mu ne nattu bi su ñëwee dañu koy dugle mboolem nattu ya weesu woon yëpp dañ koy boole ak nattu boobu tegaat ko ko mu gën diis ba muy ñaar fukki at ak juróom mu ne ko nattu bi jeex na kon sant ci des Sëriñ baa bindaan ne rumtu sukooralaahi sil jalaali min tel sasin bi sigri wal alaali kon rumtu sukooralaahi sil jalaali maa ngi sàkku na kon sant yàlla sun borom mi aji màgg ja min tel sasin kon mooy ca déwén sa di tal sas di juróom-yenti ati njaareem ci la màggal gi tàmbali bi sigri wal alaali bi sigri ci jàng alquran bi sigri ci sikar bi sigri ci jàng xasida bi sigri ci salaatu ala nabi wal alaali ak lépp lu dagan ci lekk ak naan loolu rek mooy màggal du leneen loolu rek mooy màggal du leneen rumdu sukooralaahi sil jalaali min dal sasin bi sigri wal alaali kon muy bés bu tedd waaye mu am nag tuuti lu may wax ak yéen ci jëmm ji fi nekk di Serigne Moustapha Mbacké moom sëñ Abdou Akam ak way juram te daal di taxaw foofu ndax man ku tuuti laa ci wax fii ci seen biir ku ci tuuti laa ngir ñàkk gi xam-xam ak ñàkk gi daraja tax na toog fi seen biir di fi wax ndigal rek a ko mën a waral waaye su doon to ndigal duñ ko xalaat ma ne nag ahonsu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim sëriñ Moustapha Mbakke sëtub sayxu aafiya na buur yàlla guddal fan bi lool may la haafiya sëriñ Moustapha Mbakke sëtub sayxu haafiya na buur yàlla guddal fan wi lool may la haafiya dangaa boole jàmm ak ngor te boole ci ay njariñ sa teggin yi moo jaaxal ñi fiy woote ak cëriñ da boole jàmm ngor te boole ci ay njariñ sa teggin yi moo jaaxal ñi fi woote ak cëriñ sa yar bii nga yor booleeg sa xam-xam bi moo nu doy sa la biir gi ak girmaandi ji moo nu dolli tey da jël jikkoy Cheikh Abdoul Akram mu tedd ma te moom turam te moom tur moo doon ay jikkoom yàlla xam na ko te te baayam ba moo doon sayxu aafi mu sell ma te mooy Ahmadul Muxtaari tànnam nga umpu melam waa waral Cheikh Bamba takkal ko ab melam waa waral Cheikh Bamba tànnal ko ab cëram melam waa waral Cheikh Bamba tànnal ko ab cëram mu doon ilimaanam bii cërëy mu doon ilimaanam bii cërëy cër bu am ngërëm bii cërëy cër bu am ngërëm ku Cheikh Bamba seet bam doy ko ci julli doy gu wér xamoo kem sëriñ affaire yi boroom gëm te gëm ga wér sëñ Tuubaa mi julli jaral ñu yóbbu ko ba ci biir géej mu sànni deram sànni boppam ngir julli ku ma àttana jël teg ci kanam fa mu daan taxaw mu taxaw loola fa kooku ab cëram kenn mënu ko am kon ku Seex Bàmba seet bam doy ko ci julli doy gu wér amoo kem sëriñ afey boroom gëm te gëm ga wér ba muy jiita gànnaar weeru kooram wa naar yi jóg sëriñ fiya defoon maamoom ya bii sangam mës la ñu bari dañuy defee ne Serigne Touba ci njaarim jii la jiitale Sëñ Afe jiitu na loolu gànnaar la ko Sëñ Touba jëkk a jiitale weeru koor di waaj a teru mu woo ko waxataan ak moom ne ko yaay jiite naa fi alxuraan naar yi ne loolu mënta am nun sërif yi doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nun borom njañ yii di wali di sërif borom der bu ñuul taxaw ci sun kanam di jàng alxuraan kooku mënta nekk waaye ba waxtu wa jotee ba Serigne waa jox ko ndigal Serigne a fi ñëw taxaw ca kanam borom njañ ya sërif ya seen maam alxuraan wàcc ci moom di yont yàlla rasulullahi salaa salaam Serigne a fi ba mu yëkkatee alxuraan daa mujj naar yi mënatuñoo du julli dañuy xus seen kawar di yuuxu ndax mësuñoo dégg <coughs> maxaarij bu mel noonu ak lamiñ wu sedd noonu sedd noonu rafet noonu mësuñu koo dégg waaye dañoo xamul ne fekk na Serigne bi waajal na ko bu yàgg. maam Mor Diarra magi mag mi doon waatukaay bi sëriñ Tuubaa jël na sëriñ Afe jox ko maam Mor Diarra maam Mor Diarra yor na ko téeméeri guddi guddi gu ne mu déglu sëriñ Afe ba muy téeméeri guddi muy tari alxuraan téeméeri guddi guddi gu ne sëriñ Afe tari na ko alxuraan ci kanam maam Mor Diarra magi mag kooku amul moroom moo tax ma ne ko ba muy jiita gànnaar weeru kooram war naar ya jóg sëriif yaa defoon maam moom bii sang mës la gag tareem baa ko wér baatam ba neex naar ya déglu ko maxaarij ba jaaxal leen xaróolam ba raw na ko te naxwam ba ak mantix ba jaaxal na gaa yi biir te jaaxal na ñooñ kaw ñii sëriñ Afe mooy ku wóor ak a wóor li lay tax sëtam baa ngi sëriñ Moustapha al di yaaram ci biir ak biti tànnam ga gërëm juboo naak ña di bokkam juboo naak ña julit jullit juboo naak ki dëkkaalim juboo naak ña di murit